mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy faratal di déglu vendredi nag bu waxtu jotee ngeen di faratal di teewlu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di docteur Makhtar Dieng Badiane mu nekk médecin ophtalmologiste waaye tamit nekk coordonnateur du programme national de la santé oculaire euh, foofu ci ministère de la santé et de l'action sociale euh, sama sama sama tey nag man maa fi nekk buuram quoi parce que Dieng moom foo ko dégg Euh, Fallène bi su waxee rek moom day daal di noppi docteur ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci Rewmi FM waaye di la remercier ci sa disponibilité ak i tamit ci sa oyoftee. Euh, merci beaucoup soxna si Fall effectivement. Euh, ci la ci ñun euh, di participer ci émission bi pour mën a waxtaan ak seen auditeurs ak euh, population sénégalaise ci jàngoro bët te moom bon man mi ngi ci sant bi mais Badiane laa sant bi Muktar Dieng Badiane <laughs> mais am naa maam bu sant Fall aussi. Euh, mu mu mu mel ni kon karante bi daal dina dugg ba pare en tout cas jërëjëf et merci beaucoup encore une fois docteur dañuy tàmbale ci li nga xamante ne moom moo di actualité bi ah nga yëngatu ci wàllu gu yaram rawatina ci li nga xamante ne moom moo di ay jàngoro yu bët guddi ñu toll nag mu mel ni Sénégal dafa am épidémie bi ñuy duppee eh, apollo ñu koy farataal di gis bu nawet bi jotee tey jii eh, lan nga ñu ci mën a wax eh, pour tàmbalee ndoxteel waxtaan wi. jërëjëf comme ni nga ko wax conjonctivité tubaab euh, jolof di ko woy apollo euh, yenn saa yi faral am euh, suñuy jublu ci nawet wala suñu nekk ci nawet bi mu nekk épidémie boo xam ne dina xaw son sonal souvent ren nag li particularité bi dafa xaw a tombé ak feebaru mbas mi bi ñu Covid 19. Mm-hmm. waaye nag ni muy fan yëpp ci ay ñett ay bés yi am na cas yu bari yuñ ci recensé mooy cas de conjonctivite mais ba léegi euh, cas yi ci nga xam ne dafa xaw a euh, am relation ak feebar bi xawta bari waaye am na mais xawta bari euh, bu ñu waxee Apollo apparemment am na ne mi manifesté wu ak li nga xamante ne moo koy sabab lan nga ñu mën a wax rek ci li nga xamante ne moo di cause jàngoro bi di Apollo docteur Badiane Euh, apolo bi nag euh, bari na ay cause maanaam ni koy andi euh, mën na nekk ay cause infectieuse mhm. doomu jàngoro bactérie wala virus mën na ko andi mën na nekk aussi allergie maanaam nit ki am lu yaramam di alle li li yaram di di seexlu su dee cause infectieuse yi nag bactérienne wala virale habituellement ni muy manifesté wu nit ki bëti day am ay laas di xonk Euh, muy mel ni souvent lu am euh, xeer ci biir bët yi wala lu am euh, corps étranger maanaam lu ci nekk mais li ci ëpp du ànd ak gis-gis wàññi ko gis-gis bi de normal ba léegi mais bët yi day xonk am ay las maintenant su dee forme yi nga xam ne allergique la nit ki maanaam daam lu yaramam di xaw bañ maanaam lu lu muy seexlu loolu day nekk ci famille maanaam nit ki am frèram wala sœuram magam wala rakkam wala mbokkam papa yaay bu am euh, terrain d'atopie maanaam terrain allergique maanaam lu famille bi xaw a allergique mm-hmm. wala soit ñu am as ci terrain yooyu lay feeñ mais loolu nit ki day dund ak moom day dem di ñëw maanaam tant que mi ngi jege li muy li muy seexlu day am su ko jegewul jël ga rapide mu disparaître mm-hmm. te léeg-léeg du ñëw tout le temps man mooy cause infectieuse bi nga xam ne bactérie la wala viral virus la loolu su ñëwee ci épidémie lay ñëw donc euh, su amee li ñuy nit ki su demee ci bërëb fajukaay bi bu ñu jox ko ay tuufaay dina jàll. Euh, wax nga ko léegi docteur Badiane am na cause allergique est-ce que boobu euh, neex na neex na neex na ràññee d'autant plus que su ma la déggee dafa mel ni dañ koy xaw a mel ni loo xam te ne dañ koy doon. waaw loolu mën nañ ko ràññee mooy habituellement di ñu woy xale yi bu ñu am petit café yi mhm. waaw moomu habituellement loo ci conjonctivite euh, euh, allergique lay bokk aussi souvent ak euh, bëtu café yi mooy bët yi di ñuul voilà loolu donc habituellement day day day day day topp xale bi bi muy am ay trois ans quatre ans ba presque quinze ans mhm. mais mën na jékki-jékki rek disparaître dem mais tant que mi ngi jege li muy li muy li muy bañ maanaam li mu allergique day dem di ñëwaat mhm. presque amul amul relation ak benn doomu jàngoro lii mm-hmm. loolu ci ci ci yaramu nit ki la ci famille bi la mm-hmm. maintenant euh, ni muy mandarga aussi mooy nit ki bëti day xasan di xajam mais souvent aussi su dee ci xale yi comme li ma wax sànq bëti day mel ni lu café lu marron mm-hmm. voilà donc habituellement noonu lay mandarga wu apollo mu mel ni dafa euh, neex na neex neex na faj wala neexul faj lan ban traitement euh, préventif moo ci gën a adéquat bon pas euh, c'est-à-dire su nit ki su su commencé am comme euh, période bi ñu amee nii mooy épidémie bi mm. li gën mooy am cet maanaam nit ki set di raxasu ba set di silma ba set ak saabu ak ndox loolu lépp aussi euh, pour éviter propagation maanaam pour éviter feebar di law mm-hmm. ñi am di wàll seen i seen i seen i frère seen i sœur wala seen i dëkkandoo collègue fi ñuy liggéey donc suñu su suñ ko amee c'est d'être très très ñu ñu ñu xaw a ñu xaw a gën a farlu ci set maanaam di di di di di di sëlmu di raxasu di bañ contact di laal nit ñi wala di laal ay objets yoo xam ne leer nañ leen suñ ko laal ñeneen dinañ ko laal mu mën a lawal feebar boobu. Mm-hmm. Euh, on a une société traditionnelle ah ñu ñu baaxoo di faj ay faju cosaan wala nit recommandé la benn benn ben benn garab doo dem sax jéem a xool au niveau de structures il faut il faut que ñu recommandé ko rek la ko nga def ko appeloo nag gars yi dañuy wax ne des fois nga jël toq lingom wala nga jël ndoxu géej ndax loolu au fur et à mesure ñuy jël produit yooyu nga xamante ne mën na am lu chimique mënul am lu muy yàq ci la la vision de la personne Euh, li nga expliqué def c'est vrai que traditionnellement am nañu koy def mais c'est pas recommandé. Mm. li gën mooy ku am feebar boobu noonu li ñu woy apollo il faut mu dem euh, ci hôpital bi ko gën a jege mën na nekk poste santé centre de santé wala hôpital ñu seet ko bindal ko ay tuufaay. tuufaay yoo xam ne yi ay coulure la yeneen yi mën a nekk ay pàccal. Mm-hmm. Ah, mu mu ko ciy def so ko ci defee au maximum ay une semaine dina dina dina tene ba dix jours. Mm-hmm. mais aussi foog mu ànd ak li ma wax sànq cet maanaam di sëlmu di raxasu. hygiène de vie mais dem jël ndoxu xorom wala kii bon c'est pas des pratiques qu'on recommande li gën jël ay garab tuufaay. faj ba mu wér balaa muy gën a andi ay complications c'est vrai que complications yi bëriwuñu mais am na forme virale boo xam ne mën na andi ay euh, séquelles mm-hmm. maanaam bët bët bi am ay topp topp yu ci nekk ba nit ki gisam di wàññiku mm-hmm. mais traitement aussi am na pour loolu sur un mois à peu près au maximum mu tene mais bañ a egg ci foofu moo gën maanaam jël traitement bi correctement mm-hmm. maanaam dem hôpital bañ a def automédication encore moins di dem di jël ay ndoxu géej wala di ko ah. euh, mu mel ni foofu leer na docteur Badiana euh, conjonctivité wala apolo bokk na ci infection yi nga xamante ne moom mooy farataal di sonal bët mais bu weesoo lu ni mel am na yeneen yu tur yu ci mel ni kératite wala li nga xamante ni moom moo di blépharite ñu buggoon rek nga taxawal ñu foofu euh, kératite xam naa ne nit yi fas yéene farataal yi nga ko di dégg ban ban jàngoro la ak nees lay manifesté woo bon c'est vrai que lim nga yenn feebar yi ni mais bon li gën a bari Sénégal à part conjonctivite bi mooy cataracte. cataracte dinaa ñëw ci li nga expliqué sànq mais la cataracte wala li ñuy woowee euh, trachome maanaam bëtu xef ak ñi nga xam ne dañuy am jafe-jafe pour euh, gis te lunette di ko waral mooy li ñuy amétropie. Mm-hmm. Sénégal fii ñett yooyu ñoo gën a bari. su dee la. Euh, moom moo ëpp ci la ñuy li ñuy gis Sénégal li tax nit ki am jafe-jafe gis si wala nekk silmaxa baleen ma ci kàddu gi. Mm-hmm. te loolu di faral di dal mag ñi nga xam ne euh, am na juróom-benn fukki at ba ci kaw mën na dal xale mu juddwaale ko mais day fekk mu am yaayam am feebar ci ci ci ci bi muy ëmb bi mu koy ëmb wala mu am mu euh, mu am feebaru deret boo xam ne papa yaayam dañu xaw a jege nekk ay mbokk consanguinité voilà ci tubaab loolu mën na ko andi wala xale bi. Euh, gaañu bi mu juddoo wala su dee xale bu bu bu ndaw la ci au cours de di bi muy foo xale ak xaritam yi. Mm-hmm. mën nañ ko dóor ci bët wala bal bal dal ci bët mu andi cataracte wala soit mu am mu ay garab yu jël su dee mag la aussi mën a nekk mu am diabète wala di jël ay corticoïdes. Mm-hmm. yooyu yëpp na ko mm-hmm. ci gën a bari daal mooy. cataracte sénile maanaam lié fukki at ba ci kaw loolu presque mun naa ne du feebar mais lu normal la. di nga ko am non non lu loo xam ne physiologiquement la c'est-à-dire cataracte bët euh, kii bi euh, cristallin bi ni muy transparent bi bi nit ki di juddoo di dem ba opacifié maanaam. voilà avec l'âge donc loolu mën nañ mën am na ñoo xam ne seen bos di dem ba ñor. Mm-hmm. ñu opéré am na ñoo xam ne dañuy dund ak moom. du ñor. donc euh, après soixante ans ça peut apparaître loolu moo gën a moo gën a bëri mooy lié à l'âge quoi. après ça te loolu aussi ñu ngi koy fekk suñ lay opéré rek gis-gis bi ñëwaat normalement su fekkee ne bët bi amul beneen feebar amul beneen feebar ci ginnaaw. voilà maintenant aussi am na euh, beneen cause bi fii trach trachome benn infection la boo xam ne dina dal xale bi. su ci ay su amee ay un an ba neuf mais mën na dem di ñëw di dem di ñëw loolu cet moo koy ñàkk am cet moo koy andi. Mm. cet ti sa bopp ak cet ci environnement. Mm-hmm. mais su yàggee nag mën na andi problème ci mbaru bët bi ba mu andi dañuy bët xef mag ñi xam nañ ko dañ doon tànn seeni xef parce que day xos bët bi andi jafe-jafe. gis-gis da koy xos xef yi ci biti la war a jublu. Mm. mais feebar day tax xef dem ba ci biir bët yi di ko xoos xef muy xoos bët bi. Mm-hmm. ni koy xoosee da koy gaañ ndànk-ndànk ba andi ay jafe-jafe ci peru bët bi. Mm-hmm. ba nit ki silmaxa. Mm-hmm. loolu aussi bari na Sénégal bari woon na Sénégal mais ak jéego yi ministère de la santé def ak euh, ay partenaires am dellu na bu baax ci ginnaaw desaat na mais ñu koy waaj a éliminer fi mu nekk nii fii ba deux mille vingt quatre wala vingt cinq incha beneen cause bi aussi mooy. ñi am jafe-jafe gis-gis ñi nga xam ne comme myopie hypermétropie wala astigmatisme sénégalais képp ku takk veille ñu ne nga myope mais am na plusieurs formes am na hypermétropie am na astigmatisme am na euh, myopie ci boppam. Mm-hmm. donc loolu lépp ci cause yi nga xam ne mooy tax nit ki di ñàkk gis surtout ci xale wala ci kaw âge yenn âge avancé yi. Mm-hmm. ci la bokk te bari na fi aussi au Sénégal. Mm-hmm. te yooyu ay verre moo koy moo koy saafara. soo gisee suñu population si dañuy bañ a takk verre. mais c'est la solution soo demee ba ñu ne mooy. Euh, la solution la solution mooy accepter ko. Mhm. à part am na lu ñuy woowee glaucome tension lii ñi ñuy woowee communément tension bët. Mhm. maintenant pour venir a li nga wax kératite boobu am ci kaw peru bët bi. Euh, lu ñu la ñuy gis mais am na benn verre bu nekk ci kawam boo xam ne c'est transparent mhm. verre boobu su amee inflammation loolu la ñuy kératite ci terre à daal langage terre à loolu nag ñu bari xamuñu ko mën na andi ay méttitu bët xonkaayu bët gis si wàññiku ak sensibilité à la lumière maanaam suy xool làmp wala naaj bi muy metti mm-hmm. voilà donc euh, signes mo moo gën ci ci feebar bi nga expliqué kératite mais di gën a am importance Sénégal ci wàllum population bi li leen sonal ci wàllum bët mooy maladie yi ma cité tantôt cataracte amétropie maanaam problème mu verre ak euh, trachome bëtu xef. d'accord euh, docteur Badiane wax nga ko cataracte mën na dal xale mais su ma la déggee bu baax mag lay gën a dal li koy expliquer mooy ça avance avec le poids de l'âge mais aussi dafa nekk loo xamante ne koy dal di fay ji bu ñu ñëwee ci li nga xamante ne moom mooy hypermétropie bu fekk bu ma juumulee mooy loolu ñu bëggoon xam rek ban frange de la population lay dal aki i tamit naka lay lay lay manifesté woo comme moo fi gën a xaw a bëri doole fii ci Sénégal. Euh, euh, problème mu man li ma explique du hypermétropie que problème mu en général mm-hmm. par exemple. Euh, fii nii ci suñu ci suñ ci Sénégal ci troisième cause yi la bokk presque ci ñi nga xam ne soxla nañ problème am jafe-jafe vision mais mën na dal ñëpp xale comme mag donc il faut euh, habituellement su dee myopie la euh, nit ki day am jafe-jafe pour gis de loin mais dina su dee dépré dina xaw a tene. Mhm. bi ci noonu lay mandargaw. Mhm. su dee hypermétropie c' est un dina xaw gis de loin mais de près su jegee de flou mais foog mu defaa ay effort pour mën a gis mu am bët yi su liiree ba ngoon wala liggéey ci ordinateur bët son wala soit mu. Euh, muy muy muy def ay effort di piis bëti pour mën a xool pour mën a xëcc image bi su su ngoonee maanaam su liggéey ba pare wala su liiree ba pare liggéey ba pare bëti di métti bopp bi di métti ba ci man noonu lay manifesté yi muy def mooy répercuté wu noonu mm-hmm. mais li ci ëpp suñu defee correction ay verre ba dalal bët bi ba vision bi normal du amati si yooyu noonu mm-hmm. astigmatisme aussi am na maanaam su ma ko mën a expliquer terre image yi wala chiffre yi nga ngay xaw a confondre stéréocyté c'est un problème sur la cornée loolu aussi suñ la ko suñ la defal correction dina dina dina dina revenir mais ñett yooyu ño ëpp fi mu nekk nii par rapport a ñi am jafe-jafe vert fii Sénégal. Euh, wax nga ko si sa biir wax euh, mun na manifesto ak li nga xamante ne certainement ay maux de tête la ay méttitu bopp mais. am na ñoo xamante ne mën nañ traîner ay séquelles lu métti tu bopp ay ati at ñu defal leen peut-être ay scanner defal leen ay traitement microdil mais mu mel ni laata ñuy détecté que lii myopie la euh, dafay xaw a euh, yéex trop trop des fois sax xamaana ma buñ ko teeloon détecter degré vert yi ñu lay prescrire du yegg foofu euh, lan mooy expliquer lenteur boobu noonu waaw c'est vrai que y a plusieurs facteurs bon d'abord culturel culturellement fii ñi ñi duñ bëgg takk verre mm-hmm. man par exemple sama doom day takk verre il suffit souvent euh, pour mu mën a convaincre ñi ñi pour leur enfant damay obligé wane photo sama doom ak verre yi dangay gis ko xam ne day am bët yu jël ñu ne non ko ëffal affaire seetaan yi na ko judduwaale strabisme la liñ koy wooye te loolu problème verre rek mën na ko andi da koy def suñ ko corriger rek ça revient correctement mais suñ ko mën na am leneen lu koy andi mooy glaucome con non sa congénitale mën ko andi wala wala wala wala kii comment dirais-je euh, rétinoblastome maanaam benn tumeur benn cancer bët mën ko andi. Mhm. mais lu mu bon bon foo gis xale buy jël urgence la. ñu yóbbu ko hôpital ñu xool suru ñaari ma njëkk a lim. ci mhm. le problème vert rek suñ ko bindee le vert yi ça revient mais li ci jafe-jafe suñ teel a jël en charge. même suñ ko traité après mën na dem ba xale bi du gisaat mhm. donc teel a dem hôpital ci cas yooyu noonu moo gën mais mun ngi revenir naat ci sa question culturellement nit ñi bëgguñu verre loo tax souvent même suñ teel a ñëw su leen prescrire pour seen doom dañu ne noon su ko teree takk da koy sonal degré yi gën a bari non lu médecin su la recevoir ba jox la traitement c'est parce que mooy li gën ci yow mm-hmm. donc loolu lépp c'est-à-dire culturellement mais ñu ngi ci def ay efforts de sensibilisation pour ñu changer de comportement vis-à-vis de de ces pratiques là mm-hmm. mais comme ni ko wax tantôt souvent il y a des retards mais avec euh, les les les la sensibilisation ak li nga ñuy permettre yéen ñuy waxtaan population bi nii ça permettra aux gens de savoir que yooyu noonu c'est des traitements aussi qu'il faut pour mën a euh, permettre nit ki mu mën a gis wala mu bañ a silmaxa après xale bu war a am verre am ñoppi forte teel a ko ko defal risque même su demee ba yenn âge yi du gisaat dina xool ni mais du gis donc très lu ngeen gis comme alumaan yi ci seen i doom per bu weex bët yu jël wala bët raf rapidement nañ leen yóbbu hôpital pour ñu teel a jël en charge ces enfants là. Mhm. Euh, bu fekkente ne xale boo xamante ne day jàng la am yenn âge yi ndax mënu ko indil ay ay ay gàllankoor ci see ci ak tamit ci lépp lu jëm ci wàllum ay résultats scolaires am laata muy atteindre l'âge adulte bien sûr. effectivement dina ko indil ay gàllankoor loolu taxoon sax on travaille avec euh, la division du contrôle médical scolaire DCMS mooy wàllu su santé bi nga xam ne moo nekk ministère éducation nationale ñu tàggat enseignants yi pour ñu xamee xale yi am problème mu vision suñu gisee xale boo xam ne su toogee ci ginnaaw du gis wala di jàmbat méttitu bopp wala di def effort wala di retard ci dictée bi wala li ñu koy dicté leçon yi wala balaa muy mën a am. avance foog mu xool ci voisin ñu repérer kooku xam ne il a des problèmes de vision mhm. wala soit ñu gis xale boo xam ne day sëgg trop ci kaw kaye bi pour mën a gis ñu xam ne c'est des signes d'alerte de loolu comme li nga wax si c'est pas très tôt vu ça va impacter négativement sur les résultats de l'enfant du am résultat yu baax su wàccee métit métit bopp lay jàmbat wala bët yu du mën a jàngaat du am yu baax ay fautes yu bëri lay def donc on a trouvé des solutions pour former les les enseignants pour ñu xàmmi cas yooyu noonu mais ñu ngi profité seen antenne pour sensibiliser parents mm-hmm. xale bu gis mu jafe-jafe wala mu gën a jege tëli pour mën a xool buñ ko dóor mais nañ xam ne y a un problème bu njëkk da sa doom ji def ay fautes yu bëri wala di def ay manières nga foog ne day mm-hmm. a un retard sur le côté résultat comme li wax sànq suñ ko teel a corrigé. Mhm. du gisaat de ko dul gis doo mën a jàng. Mhm. donc loolu tax ñuy collaborer avec la DCMS pour ce pour ça on a eu beaucoup de résultats. Mhm. enseignants yi dañuy très référé xale yi ñu leen di corriger ñu continuer seen i jàng correctement sans problème. Euh, enseignant bi am na ci wàll waaye waajur yi tamit am nañ ci wàll ñu bëggoon xam rek euh, ci wàllu sensibilisation bi euh, soxal waajur yi ndax yomb na expliquer nga ko sax dañuy gis xale bi di def yenn yi mais des fois amuñu approche boobu aussi peut-être di nga gis xale bi muy yéex nga ne ko da nga bañ wala tu n'as pas la bonne volonté alors que yow impliqué wo wala posé wuloo la question bi nga xamante ne sama doom lan moo tax bu sëggee ci kay bi cinq heures de temps boo ko posé benn question duma ndax ci waajur yi bi. ci tayal aussi parce que mm-hmm. suñu li ma ko sànq aussi c'est avec ces genres de démission et d'initiative qu'on va toucher le plus large la plus grande partie la plus grande frange de la population maanaam toucher ñëpp. Mm-hmm. c'est vrai que enseignants yi la ñuy former parents yi mënuñoo mm-hmm. ci antenne yi la ñuy mën a. enseignants ñu nit aussi ci antenne wala suñu amee ay possibilités waxtaan ak parents yi lépp ñu gis comme anomalie xale bi jege télé pour mën a xool. wala mu jege kayam suy jàng wala mu jàmbat méttiti bopp wala bët yi su wàcc su jàngee ba pare il faut être alerte il faut l'amener à l'hôpital mais bul ko bu ko ko imputé ne moom moo bañ a jàng moo moo waara cest à a xool lu pour andi ko hôpital ñu xool ko su fekkee ne amul dara nag nga soog a conclure mm. mais le mieux c'est de traiter c'est nañ xam attitude d' observation ah, soo amee sa doom nga xool est ce que mi ngi gis bu baax est ce que bët bi raful est ce que bët yi jëlut est ce que amul per bu weex mm-hmm. wala soo ko joxee tàllale dara aw ba à bas est ce que mi ngi koy mën a nangu est ce que mi ngi développé correctement il faut avoir cet esprit de, de un, un, un regard vraiment un mm-hmm. peu euh, poussé sur l'enfant mais aussi Euh, comme li wax sax bëti jël wala yu ref il faut être très alerte et très rapide. Euh, pour détecter ñu ngi aussi dans ce sens ñu ngi aussi en collaboration avec des ONG di former aussi des autres personnels de santé maanaam infirmiers sages-femmes médecins pour ni ñu examiner xale bi en pédiatrie très tôt ñu xoolaale bëti sage-femme su amee xale bu juddu ni muy xoolee ndax. amul problème mu jumbax amul problème mu awra mm-hmm. na ci xool tuuti bët yi rek su dee bët yi amul tuuti anomalie ñu très tôt xale bi pour may ko chance mu mën a gisaat. donc toutes ces toutes ces activités on les mène pour pouvoir sensibiliser le plus. Euh, le plus maanaam pour pour sensibiliser nit pour ñu mën a mhm. réduire les causes de cystite chez les enfants. wax mhm. nga ko am partenariat avec certainement les ONG ak les sages-femmes ak infirmiers yi euh, euh, des plans d'action ay activités yu ñu war a ONG yooyu ñu dimbali avec l'appui Euh, avec euh, avec une convention avec l'État mm-hmm. à travers le ministère de la santé et de l'action sociale maintenant ñuy former ñi ñi ñuy sensibiliser ñi ñi ñu mettre à disposition des équipements pour mën a euh, arriver à à nos objectifs mm-hmm. dañuy farataal di dégg docteur Badiane li nga xamante ne tamit sécheresse sécheresse oculaire bu ma juumulee expression bi loolu la lan nga ñu ci mën a wax pour mbokk auditeurs yi ñuy déglu waa loolu am na surtout mais am na ñoo xam ne day nekk ci ñoom ci parce que dañu am yenn feebar yi yenn feebar yi peut mën na nekk rhumatisme wala mën mën na yeneen faram maladie euh, auto-immune yi wala soit mën na nekk aussi lié à l'âge surtout chez les femmes peut-être su ah, à l'âge chez les femmes su ne ba am ménopause wala préménopause loolu mën na ci fi ni ñu am bouffée de chaleur loolu mën na nekk aussi mën nañu am ay sécheresse oculaire associée mhm. donc loolu lépp c'est des facteurs qui existent mais am na ay traitements yu ñuy joxe ay larmes artificielles maanaam ñu leen di jox loo xam ne day mel ni rongoñ artificielle loo xam ne dina tax bët yi xaw a euh, euh, bañ a wow muy tooy tuuti parce que xef yi suñuy laal bët su bëti yi woowee day nekk lu luy déranger nit day mel ni lu xajam ci alal ak mën a indi ay jafe-jafe ci peru bët bi donc dañ defal tuufaay yooyu pour mën leen jàppale mën leen dimbali pour bët yi gën a gën a gëjëf entre guillemets mm-hmm. mais surtout euh, su dee euh, comme ni wax de signe de ménopause c'est chez les femmes surtout mm-hmm. les apparaître su dee ñeneen feebar bu am comme ay rhumatisme wala auto-immune mm-hmm. docteur lan la ñu a wax ci li ñuy duppee waa presse bi si ça c'est lié à l'âge habituel aussi maanaam pour nga am da ngay ñi am jafe-jafe pour lire de près maanaam bon bu njëkk da nga doon gis sa papa wala sa yaay wala sa nijaay di la woone kaay liiral ma lii wala taalal ma torche ma gën a liir wala mu soril bind bi loolu c'est lié à l'âge à partir de quarante ans habituellement en moyenne lay apparaître mën na ñëw avant nag mais c'est en moyenne quarante ans maanaam cristallin bi nga tax bi taxoon mu amoon ay mouvement pour image bi gën a net cristallin boobu nag mooy dem ba xaw a sonn su dee mën naa ko expliquer ci terre à noonu. Mhm. ni mu waroon def ay mouvement pour xëcc image yi mooy dem ba xaw a sonn mooy accommodation loolu su amee il faut nga nga takk verre nag moo koy lijjanti. mën na nekk plus un plus un cinquante ba plus trois donc plus ngay avancer ci âge muy yokk mais à partir de quarante en moyenne lay lay dikk. Mhm. maanaam sooy liir foog nga soril bind bi léegi. de loin. voilà non non sooy lire benn livre wala benn ordonnance wala ji nas fu sa wala ceeb. Mm. il faut nga soril ko pour mën a solo doo gis. wala ñu talal la lampe pour mën a pour mu gën a leer. Mm-hmm. noonu lay manifester wu. Mm-hmm. mais si vous mettez des lunettes correctement ça revient. Mm-hmm. mais c'est c'est c'est naturel du feebar. luy ñëw naturellement avec l'âge chez le cristalin maanaam mouvement d'accommodation bi mu doon def mooy tax mooy dem ba ba du ko mënati bu baax a baax. Mhm. Euh, wax ngeen fi cataracte wax fi presbytie wax ci myopie ak hypermétropie mais euh, ban ban ban ban feebaru bët moom mooy gën a nekk facteur doomu aadama bi perdre perdre la vision ak tamit pourquoi ñu yegg foofu. ça dépend am na ñoo xam ne c'est ici chez nous qu'on les premières les les causes c'est la cataracte euh, trachome mooy ak mm-hmm. euh, amétropie mm-hmm. mais ci ñoom ñëpp presque dañoo bokk ci causes yi nga xam ne mën nañ ko fagaru wala mën nañ ci fagaru wala mën nañ ko euh, mën nañ ko faj mm-hmm. maanaam ku am cataracte soo amul su koy opéré tey si tout se passe bien suba day gis kon xam nga kooku noonu euh, c'est des causes euh, évitables mm-hmm. ou curables trachome aussi mooy li ma wax xef bëti xef yi suñ suñ defee ñi ba ñi ñi am ndox bu set di sëlmu di utiliser ndox bi correctement di am environnement bu sain assainissement bu baax kon du am problème hygiène mm-hmm. trachome du ñëw mm-hmm. kon bëti xef du ñëw silmaxa du ñëw problème amétropie bi su xale yi ak mag ñi suñ telee am seeni verre bay gis correctement duñ am problème mu euh, ñàkk gis après parce que xale bi nga xam ne moom lañ moom moo soxla problème mu vert moo am problème vert soxla vert soo ko defalul ba mu dem ba am un âge avancé day xool mais du gis. Mm-hmm. kooku noonu kon xam nga ne c'est c'est c'était évitable mu luñ mënoon a prévenir la mais su amee mënatuñ ko faj c'est définitif. Mm -hmm. su boobaa kenn mënu ci dara. mais su dee cataracte luñ mën a dindi la. Mm-hmm. mais ñii nañ assuré ñu dindi leen ko mm-hmm. donc cause yooyu noonu moo gën a bari et ab jamono ñii dañ leen di mën a faj ñii su installé wu c'est difficile comme glaucome par exemple su installé wu moom c'est définitif. Mm-hmm. Euh, mu mel ni traitement bi ni ko gën a teel a déceler ak ni ko mën a euh, gaaw a defee rek euh, nit yi dinañ ci mucc déficience visionnelle wala baisse de la vision fu ñu toll ci politique boo fii ci Sénégal. bon ñu ngi ci euh, y a beaucoup de d'acquis maanaam ay actions yu ñu mené mm-hmm. pour par exemple euh, sensibilisation pour ñu ñi gën a mën a teel dem hôpital loolu dina tax mu wàññi euh, prévalence bi maanaam nombre de cas mais aussi pour permettre d'augmenter taux chirurgie la cataracte mm-hmm. c'est-à-dire ñi am cataracte ñu mën leen opérer aussi pour ñu mën a recouvrer la vue. Donc il y a toutes ces politiques-là qui sont en train de mettre, qu'on est en train de mettre en œuvre à travers des programmes et des projets avec des partenaires en association. mais aussi par rapport à problème mu verre yi am na ñett atelier optique bu ñu def boo xam ne xam nga verre dafa xaw a cher ci ñu bëri la ñuy wax. Mhm. mais am na ñett atelier yoo xam ne comme genre prix social lañ fay def am na Kaolack am na Ziguinchor am na Louga. te mhm. ONG ñooñu jàppale pour ñu teg ko en place ministère de la santé affecté fa ay nit. Mhm. donc yooyu yëpp c'est pour rendre accessible. Mhm. ces ces lunettes là pour man a réduire. Euh, déficience visuelle yi ak euh, cécité. Mm parce que suñ mënut action yu mel noonu cas yooyu dañ gën a yéeg par exemple trachome aussi bariwoon na fi il y depuis vingt ans depuis deux mille mais ak ay association euh, l'État et ses partenaires ñu def ay distribution de masse de joxe ay garab ba loolu wàññiku na bu baax baax léegi amatuñ cas yu bari donc loolu lépp ñu ngi ci sant yàlla. Mm-hmm. di ñaan ñu gën a pérenniser ak yooyu noonu mais surtout lii euh, tax ñu gën a war a mën a avancer mooy euh, euh, maanaam changement du comportement de la population. Mm-hmm. rendre accessible de l'eau et l'hygiène et l'assainissement loolu lépp ci ci ci wàllum euh, bi ci la bokk aussi. Euh, docteur nag ñu daal di dem ci beneen wàll bi wax nga ko léegi ah wax nga wàllum verre ak euh, li nga xamante ne moom moo di seet mais fii ci Sénégal on a comme l'impression que moo xam mag wala ndaw dañuy sol verre rek nii ni nii peut-être pour le simple plaisir wala punch wala genre tey jii kan moo war sol verre ak yan verre la ñu war sol. effectivement verre yi c'est ça aussi vrai problème fukki soit des lunettes euh, médicales euh, euh, lunettes yoo xam ne xaw ma ko mën a wax ci olof waa médicalisé loo xam ne dina pres pas de lunettes de la rue maanaam li ñuy jënd ci marché yi ci mbedd yi. Uh-huh. na ñi ko war a takk mooy ñi nga xam ne dëgg-dëgg dañoo bénéficier consultation ñu xam ne lii moo leen dal soit hypermétropie wala myopie wala astigmatisme ñu bind leen wala presbytie loolu ñooñu ñoo ko war takk. surtout après une consultation du da ngay jóg rek dama sa bopp ne verre bi laa bëgg foog ñu seet la xool ban verre moom ma ngi yow su dee presbytie bi si la soo amee 40 ans am na loo war a jël plus un cinq ans plus un 50 su dee 50 ans plus. Euh, de 55 euh, ans plus de 50 et 60 ans plus 3 xam nga ku nekk ak bosom et puis aussi am na ñoo ne su fekkee da nga am hypermétropie avant il faut ñu compenser ko aussi ah. donc loolu ki nga xam ne moo moo nekk spécialiste moo la war a seet pour prescrire la ko mais du par exemple nga nekk kër ga rek gis benn verre ki takk ko alma sa verre ma liir c'est pas préconisé mm. mooy ku nekk euh, Euh, euh, c'est-à-dire euh, dem consultation ñu xool la prescrire la nga jënd ko à un endroit bien précis maanaam fi ñi ne dañoo am agrément pour jaay mm. mais pas ci biti wala ci ci ci ci mbedd bi mm. Euh, ñi nga xamante ne dañuy farataal di takk lu ñuy duppee ay verres de soleil nga xam ne dañ koy jaay ci eh, ñi nekk euh, les vendeurs à la sauvette euh, tey jii ndax loolu aussi même bu fekkente ne amoo problème mu vision yooyu verre mënu la jural ay ay de d'autant plus que dafay mel lu nekk wàllu automédication wala comme je sais pas loo xam te dafa dem ba day bokk ci ñun saag bi ngay yor wala dara pour yokk sa sanse wala yokk sa taar. bon loolu aussi bon <laughs> c'est <laughs> par rapport aux opticiens mais. Uh-huh. il faut voir c'est-à-dire que da ngeen xam ne sax amul benn problème mu dem gis benn opticien wala ophtalmologue ne eh, ñu cons defal constatation amul problème mu euh, degré maanaam gis-gis wàññiku mais confort lay soxla. c'est-à-dire su nekk ci verre bi ci ci ci ordinateur wala lumière bi am problème mën nañ ko bindal des verres euh, euh, anti-reflet pour reflet uh-huh. bi wala des des verres photogré ou bien un peu teintés pour soleil bi mais l'un dans l'autre c'est mieux de de les acheter ci ci ci ci ci ci des opticiens ou des endroits vraiment bien bien bien précis pour mu nekk lu qualité mhm. maintenant pour ne am na effet études voilà mais le mieux c'est de les ci euh, endroit yoo xam ne c'est requis mm-hmm. mais comme on sent souvent la conjoncture ñu ngi ci dëkk yoo xam ne tout le monde n'a pas les moyens am rek ngay mën utiliser aussi mm-hmm. donc souvent il faut mettre il faut essayer de d'être euh, en en juste milieu quoi mm-hmm. mais li gën mooy dem ku mu dem li ñu recommandé mooy dans les endroits précis ci opticien yi fi ñuy jaay lunettes médicales yi mhm. pour jënd mais les lunettes de soleil ça existe ah. et les gens l'utilisent il y a de bonnes lunettes de soleil qui sont préconisées mhm. aussi mhm. Euh, yow da nga lu lu ñuy wax ci ma marché sur la langue euh, ci ci ci conjoncture ci conjoncture boobu laa doon bëgg aborder sax il arrive que des fois ñu ñu ñu ñu favoriser peut-être euh, tradipraticiens yi xam nga parce que on se dit que consultation ophtalmo ko donné donc euh, du coup on préfère dem ci benn lii mu jox ñu potion peut-être dina ani atténuer douleur bi mais on ne sait pas trop ndax amul ay gàllankoor ndax aussi tamit au niveau des de vos services de communication il vous arrive ngeen di def euh, yéen yëngat ci wàllum ophtalmologie bien sûr ay journée porte ouverte ay sensibilisation pour toucher la cible xam te ne consultation bi euh, doni ngeen ko foogee aussi waaw effectivement c'est vrai que mais euh, bon du ma ne super d'accord ci affaire comment dirais-je conjoncture parce que constatation ophtalmo wala constatation médicale souvent dem ci sëriñ bi moo gën a cher ah. su loolu laajee nag wala euh, bëy. ah c'est pas c'est pas le non non non <laughs> je sais pas xam nga li ma wax consultation c'est pas aussi cher que ça mais soo demee ci tradipraticien bi. Uh-huh. il vous dit nag jëndal lii y ya certains qui font la consultation à dix mille ñoom. ñu ne cher na mais peut-être problème gëm-gëm la ak aussi problème de de choix de choix gëm la mais nous on fait tout pour communiquer pour sensibiliser mm-hmm. mais je pense que am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi ciy bàyyi xel léegi mais c'est vrai que a horreur du vide il faut que ñu ne aussi ñu communiquer mm-hmm. et on vous remercie yéen euh, journalistes et autres euh, membres de la presse vous nous mm-hmm. permettez de communiquer aussi de sensibiliser pour qu'on puisse euh, faire changer de comportement comme ni nga porte aux journées portes ouvertes c'est pas tout le temps mais on a des journées Euh, dédiés à, à, la santé oculaire chaque année, mm. ou même en dehors de ça, nous sommes souvent interpellés comme ce cas-ci, où a la possibilité avec le SNEF de diffuser à information ou à travers les nouveaux canaux, mm. réseaux sociaux, euh, euh, tous les canaux qu'il existe pour communiquer avec la population, pour partager, voilà, super médiatique, pour mm-hmm. partager les informations et les bonnes. Mm-hmm. Mais je pense bien que aller voir un tradipraticien, bon, souvent c'est plus cher qu'aller voir un médecin, ça. Euh. parce que souvent da ngay dem ñu laaj la loo xam ne day bëri. day bëri voilà le mieux loolu mooy dal ah c'est a d'autres aussi te disent que dañuy traditionnellement damay opérer cataracte on sait que c'est pas ça mais li ñu leen laaj moo ëpp ñun li ñuy laaj hôpital mm-hmm. et les résultats sont là aussi c'est nous qui qui avons les meilleurs résultats par rapport à la chirurgie de la cataracte mm-hmm. donc c'est le d'amener les je pense que c'est un problème de sensibilisation et de comportement mm-hmm. et d'ancrage culturel te loolu mi ngi changé lu bari mm-hmm. ñaa ngi changé di accepter léegi euh, euh, di faj seen bët di dem hôpital mm-hmm. euh, ñoo ko déggandoo ci fànn woowu c'est le le le le médecin le spécialiste qui parle mbokk auditeurs yi ma fàttali ne yéen a ngi déglu seen émission bi di SOS santé ñu am nag gan bu mag sax buy Mactar Dieng Badiane mu nekk médecin ophtalmologique waaye tamit nekk coordonnateur du programme national de la santé oculaire foofu ci ministère de la santé tamit euh, de l'action sociale ñu ñëw ci li nga xamante ne nag moom moo di ci wàll bi muy yëngatu maanaam ophtalmologie e, tey jii ci ban moment la ñuy gën a faratal di nemmeeku ne askan wi dañuy dem ci service ophtalmo bon presque c'est durant toute l'année mais xam si sure ci kaw ñu bëri période hivernale day xaw métti souvent accessibilité mais durant toute l'année on constate que les gens euh, dañ ñu ngi fréquenter euh, structures hospitalières yi di dem correctement Euh, c'est vrai que première vague bi mbas mi xaw na wàññi lu bari mais maintenant comme on vit avec le virus. Mhm. nit ñaa ngi reprendre seen seen seen activité seen habitude mais les structures sont sont fréquentées euh, pas pas tellement avec des différences euh, énormes mais. Mhm. souvent su ci kaw yi ci période hivernale di xaw a wàññi Euh, des ci wàllu woowu ba léegi ku ne ophtalmo certainement xel day daam ci daal lépp lu jëm ci wàllum bët tey jii ñu bëggoon nga wax ñu rek docteur Mactar Badiane il arrive que ñu ne boo jëlee wàllu palu wala wàllu sida ce sont des exemples que je donne comme ça yenn saa yi dañuy farataal di am euh, déficit ndax euh, au niveau de des services ophtalmologiques yéen di ngeen farataal di jànkonteel lu ni mel région de Dakar regorgée ophtalmo yi au détriment des autres régions même si wax nga ci say biir waxtu au début de l'émission am na ay jéego yu am solo yu ngeen def mais ci wàllum ratio bi fu ngeen ci tollu tey. c'est vrai ratio bi par rapport à l'OMS atteindre nañu ratio bi mais répartition yi mooy problème. ñu mhm. ci ëpp nag ñu Dakar. bi ñuy année yi passé jafewoon na pour nga am ophtalmologue ci région yi toll nañ foo xam ne à Dakar ak Thiès amu mais léegi yaa yaa ça beaucoup puisque région yi bëri am nañ ko léegi te am na ñu bees ñu ñu recruter ñoo xam ne ñoom it aussi on va les affect seront proposés pour des affectations mais ñu ngi def ndànk-ndànk pour région yëpp au moins am un ophtalmologiste mais même suñu amul ophtalmologue toutes les régions au moins am nañ service boo xam ne am na personnel ophtalmologique sur le technicien sur le ophtalmologie technicien de santé presque quatre vingt pour cent soixante quinze un technicien en ophtalmo au moins boo xam ne dina mën a jël en charge euh, les préoccupations de population maanaam mën leen suri quatre ans ñu opéré leen suri quatre ans suri leneen ñu fajal leen donc ratio bi mat na mais répartition bi mooy problème souvent mm-hmm. ak aussi euh, y a plus de soixante ophtalmologistes mais ci ëpp ñu ngi entre Dakar et Thiès mm-hmm. mais c'est vrai que yeneen régions yi comme Thiès Diourbel am na trois man ko ñu Diourbel c'est Touba et Diourbel mais chaque région Kaolack am na euh, région de Matam région de Saint-Louis Ziguinchor donc li tees li ci des euh, li amul à peu près cinq à six mais ba léegi même su amul ophtalmologue am na un technicien en ophtalmologie qui qui qui euh, pour pour régler euh, les problèmes de population. ba mhm. le fait que dispatching bi au niveau des régions mu xaw a amul lenn lu muy yéexal ci ci ci fête bi wala mu ralentir ardeur bi nga xamante ne ñoom la seen vision comme si flou wala ñu am ay métti ci bët aussi. non du wàññi ci lu bari. c'est-à-dire que loolu laa la région bu nekk am na une unité pour ne pas de chaque département. Mm-hmm. donc euh, au moins ça mais peut-être répartition ophtalmologue yi mooy problème mais euh, dans chaque région il y a au moins hôpital régional.

ñu teel ko diagnostiqué pour référer ko foo dem ci ci ci ci ci ci centre de santé yi euh, ñett yooyu jël ñaari am nañ ko. Mm-hmm. mbaa loolu aussi tamit euh, du xaw a contradictoire tuuti quand on prône euh, fu nekk la santé pour tous aussi. Bon, ça ça, ça, ça, ça, ça va au-delà de nos compétences. Ça, mmh. c'est nous, la politique nationale et mmh. partout, peut-être à l'image des pays sous-développés. Mais, selon je pas vous dire aussi que partout, mm. dans le pays, là où il y a un centre de santé, il y a non. Mais, dans chaque région, presque deux centres deux centres de santé sur trois am na technicien en ophtalmo ou ophtalmologue buy jël en charge et même les infirmiers comme li ma wax sànq on les a formés tous presque pour que pas tout le monde je veux dire mais dans les régions où nous intervenons presque une bonne partie des infirmiers ont été formés pour la reconnaissance au moins et, la référence à temps parce que la référence aussi est une prise en charge te la xam référé ko ci ophtalmo référé ko mm-hmm. mais euh, euh, dans toutes les régions au moins une unité où on la comme li ma wax sànq ne la première cause de cité c'est la cataracte mm -hmm. sur les régions bu nekk deux districts sur trois am na fu ñuy opérer déjà ça soulage Euh, ñu xam naa waaj a terminer ci question yi au niveau donc euh, des corps médical moo xam ci fànn woo jël yenn saa yi dañuy jànkonteel yi nga xamante ne moom moo di déficit de personnel boobu dañ koy farataal di kii ak ñàkk ay bâtiment yoo xamante ne dafay xaw a adéquat pour mën a traiter les patients comme il se faut ñu bëggoon xam rek yéen ñi yëngatu ci wàllum ophtalmologie eh, ndax euh, matale ngeen lépp lu jëm ci wàllum jumtuwaay ak leneen li ci yëngatu ngi ngir mën a defal seen liggéey ci anam bu mucc ayib. bon lépp mat moom je pense pas mu am ci c'est difficile pour mais euh, pour lépp mat mais on a comme j'ai dit dans toutes les régions il y a le minimum pour loolu. au moins et dans euh, presque trois deux centres de santé am nañ possibilité pour mën jël en charge ces cas mm-hmm. les mooy maanaam yi nga xam ne su dee cataracte la mais su dee ay choses yoo xam ne day xaw pointu yu gën a avancé il faut référer au niveau des centres hospitaliers régionaux ou même à Dakar mm-hmm. mais on a le technique pour la chirurgie la cataracte presque partout mm-hmm. pour que malade bu soxla mu bañ nekk ne day jóge Tamba ba Dakar wala Kédougou même ba Kédougou jusqu'à Matam partout si les gens ont des problèmes de cécité mën nañ opérer sur place. Mhm. donc ça au moins c'est des acquis. kon mhm. mhm. euh, problème mu vision soxlawul nguy jóge fii dàgg ci kee dem ba bitim réew. tous les tout tout pas tout par exemple il y a des pathologies comme ay greffe de cornée maanaam changer per foog nga génn dëkk bi. Mhm. am na yenn traitement yoo xam ne foog nga génn comme les autres maladies yoo xam ne les mhm. autres spécialités mais li nga xam ne moo ñu gën par rapport a ñi am problème mu verre ñi am problème cataracte wala trachome ça se prend en charge correctement avec un personnel qualifié. Mhm. d'accord mu mel ni côté boobu y a plus rien à dire euh, tey jii lan nga ñu mën a wax ci ku ñu mën a am lu ñuy duppee hygiène une bonne hygiène visuelle euh, surtout que euh, Sénégal kese du Dakar am na ñoo xamante ne pour ñu am eau potable c'est compliqué fa la ñuy fóote